كيدي وسلوا سنون وطنون قرور لراب التفات إلى لهم تائبا له من الذنب والآفات ووقفوا لعوتبت من عيب التفاتي لغيري ومني له عد علي ضمير لعوتبت ضا بيع وارجو رضاءه wa minni lahu sukrun yaduumu kadiru fajitu bi bisrin min wa abqi sukurahu alayhi safaan wal mukuusu xuburu wa fi lqalbi minni wa fi lqalbi min ridwanihi ma ukinnu daninan bihi inna sudura quburu li mawlaya hamdi radiyan anhu shakiran ala sirri sirri wal xabiiru xabiiru raditu bihi rabban yusaqiru ma yasha liman sha bi tayji di wa huwa qadiru فاكرم به ربا نفى عني العداء وساق المنى لي والجناب حقير خنيت به ربا وليا يقود لي maraami wa inni shaakirun wa faqiirun umuuri lahu fawwaat wal qalbu tayyibun qariiban ladal a'daa wa huwa basiirun رفيقي كتاب الله حوى المصطفى النبي وأسابوا في البار حين أدور أخاطبوا طيبة وإني له جار هناك يسير أخاطبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداء سرور وخاطبته في البحر سيري انتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الحضا طابت لي النفس هنا wante bi matika salaati jadiru fasal xaaliqi rawdal xidaali maan bima awbu bihi lilbar anta nasiru fasal xaaliqi taaji law bi bi mun yadi fazaaka ala almawla alkarim yasiru alayka salaatun minhu jalla musalliman maa al aali wal ashaab bi ni'ma budur la la la الله baayu góor baal yàgga baal Bamba jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba amul bis wutul bis léppam da koo jox sëñ tubaa ni sëñ tubaa def digganteem ak yonente bi saa salaam moom la maam Cheikh Ibra def digganteem ak sëñ tubaa kon man jataay bii sañu maa wax waaye ginnaaw diggal na ma ma wax dama naan nañ jëlee jàngat gi nga xam ne mooy li am solo ñun dongo yëpp nañ ko déggee ci bis bii sëñ tubaa dem na ba ci diggu géej gi boromam jaral ko mu julli ci géej gi sëñ tubaa dem na ci tukkeem bi mësta nekk ci noflaay ci nattu ak i tiis ak i jafe-jafe ci la ne te nun ñoo taxoon kon tey jii bu ñu nee dañuy sant sëñ tubaa wax ko ci kaw baax na de jërëjëfe sëñ tubaa sañees na koo wax ci kaw waaye bu ñu ko waxee ba noppi nañ ko dund nañ ko jëf nañ ko dund nañ ko jëf mooy nañu mel ni jëmm ji sëñ tubaa amul bis sëñ tubaa yóotuwul dara sëñ tubaa jeeñul dara sëñ Tuubaa lépp da ko bàyyee boromam kon nun tamit nañ neex yilif na nos gi woyof na nos gi yolom nañ ko jébbal sëñ Muntaxaa lu mu ñu def loo ñu def ko lu mu ci tere ñu bàyyi ko tey jii ngay soog a gis ñu naan la xew na ne murit sàngam am na bëgg wala am na lu muy bañ loolu du dëgg du yoon sëñ tubaa mii nga xam ne daj na lu ne ci toolu lislaam mësta bëgg dara àgg ci naan dammi wa ahli wa awlaadi fidaa u lahu abdan xadiman lahu muskaadali sanada ba muy dem ci géej gi dafa wax ne mahat mahabatiyal muxtaara sayidana hubbil maxaaniya wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaa u lahu abdan xadiman lahu muskaadali sanada yonent bee ko jaral sallallahu alayhi wa sallam kon noonu mu demee ngir nun ñu ne ko lan moo la taxoon a dem mu ne dara taxu moon a dem lu dul ñi ma yaakaar ëllëg ma mën leen a ma mën leen a ramb kooku bu ñu fàggulee loolu dëgg la nañuy wax jërëjëfe sëñ Tuubaa ca kaw waaye nañ ko dund te muy dëgg ci ñun ndax ak cant cantuk wax am na waaye cantuk jëfit te ñàkk mooy ku ñu xool xam ne ñoo ngi dund li ci sëñ Tuubaa bàyyee ci suñu xol di ko jën dund ci suñu jëmm ñaanal ñu ci Fall man aw ma leneen lu may wax lu dul sant la ak nga ñaanal ñu ñun ñi ñëpp ñu dund murit gi te muy dëgg ci ñun ku ñu gis xam ne dongoy sëñ Tuubaa yi ko jox seen bopp te muy dëgg ñu ngi nii ndax bu ñu jàkkaarloo moom bis pénc xam naa ne siggi sax du yomb waaye moom mu nañu siggi leen ndax ñu mën a siggi <laughs> ah! nanu ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi loolu tëwér nanu ñaanal sëriñ Cheikh Assou Ndiaye mu yàgg fi tëwér nan ko xoolee sëñ sëñ Cheikh Rafal tey amin amin soxna maam Mare Mbacke yàlla na fi yàgg te wér soxna Sow doxuma tabarkalla amati nga ndam lii lii lii lii lii lu liggéey bi sax jigéen lii li taxawaay góor la góor yàlla ñu ngi yaan gudd fan waaye sa ñuusu tabarkalla macha allah wanaan nga nu yoon wi wanaan nga nu yoon wi ndax lii rek mooy liggéey bi nag liggéey baa ngi nii sëñ Tuubaa am bu góor amul bu jigéen nag ci loolu la nga ne xuma yàlla gudd fan a ku la ko yéene jërëjëf Maguette Nabarane bu nu paree nag ñun ñëpp nañ dem ca mbay sëñ mbay ngiraan du ñi dem ca baas ba déglu waxtaan ci Cheikh Ibra mooy ndigal li nag na dem ca ba لا la la la la